نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بقيتي يالله sunu xutba passé bi ñu mujjoon def fii ñoo ngi doon fàttali sunu bopp di fàttali mbokk jullit yi fukki tomb ak juróom ñett yuy waral sunu dëkkuwaay yi am barke
mawduu xutba bi moo doon kayfa nuidul baraka ila manazilina naka la ñuy def ba barke dellu siwaat ci sunu biir kër yi amoon nañ ci ci waxtu woowu juróom-ñeenti tomb ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala fas yéene mottali li des waaye mbokk yi fa inna annaas fi hadihi alayaam yaskuuna min qillati risqi wa adami albaraka tey fi ñu toll mooy doomu aadama yépp nit ñi ku nekk mooy jàmbat wërsëg wu néew ak alal ju amul barke wala dund gu amul barke nit ñi sonn nañ bu baax a baax pour seen dund ñu jëriñu waaye barke lañ ci gisul mboolem wàll yi nit ñi soobu nañ ko jaar nañ fa di sàkku wërsëg di sàkku seen dund neex bal ñenn ñi sax dem nañ jaar ci yoon wu nekk dox nañ dugg ci xur yu nekk fu nekk jaar nañ fa waaye mënuñoo fexe ba seen dund am barke wa saaw ilayhi bi kulli sabil fa hada yugish wa hada yasruq wa zalika yurabi wa yartashi wa salis yunafiq wa yaxda wa rabi yusafiku aldima wa yaqtau alarham wa yatruku altaat wa xaamis kullu dalika min ajli mujawarati nnas wa talbiyati matalibi nafs wal ahli wal walad lu tax doomu aadama yi daw faq ñépp jëm ci alal koo gis alal alal ñu dem sax ba ne buntu boo soobu pour am alal rek baax na nga gis waajale muy muy tricher kële di fen kee di sàcc kee di lekk riba kee di lekk neexal kee ab naa féq la kee rambaaj la kële agresseur la day rayaate kële mbër la kële rappeur la kee simbikat la kee day jaay boppam kee góor jigéen la loolu yépp limansa pour sa dund gi nga mën a am loo dundee yaag say doom ak sa njaboot ak sa waa kër na nga am alal rek moo ñu yitteel kenn ci ñun barke yitteelu ko am alal bu dagan bu am barke alal rek moo ñu yitteel nu nu def ba am alal rek baax na ixwatal iman wa nasiya haula ñoo ñëpp ànd nañu fàtte an allaha sharaa li ibadihi al asbab allati tajlibu rizqa wal baraka jaam yàlla yi tey ànd nañu fàtte ne yàlla subhaanahu wa taala moo leen yoonalal moo leen tëralal moo leen sant ñu dunde ñu jaar ci yoon yi nga xam ne ci la doomu aadama di amee wërsëg waaye wërsëg wu am barke borom bi leeralal leen ko wa bayyanaha lahum wa waada man tamassaka biha wa ahsana istixdaamiha bi siati rizqi wal barak moom borom bi yamul rek ci sant leen ko waaye da leen a leeralal yoon yi ñuy jaar moom sax mu dig moom yàlla mu dencal mu wax waa ji nga xam ne moo dégg waxu yàlla jaar ci yoon woowu yàlla nee ne dinaa ko may wërsëg waaye dinaa ci def barke ixwatal iman fa ilaykum an niqaat al baaqi aw ittaali keroog waxoon nañ juróom-ñeenti tomb ñu tàmbalee tey ci fukkeel bi fukkeel bi nga xam ne doomu aadama bu koy jëfee nga sàkku ci barke yàlla mun naa def ci sa dund barke mooy lan di jëfandikoo maa u zamzam zamzam wa barakaatihi wa barakaati surbihi wa du'aa'i qabla surbi zamzam a ngi nii lenn sax ci borom xam-xam yi jàppee ne min maa il janna ci ndoxu aljanna la bokk boo maree naan ko màndi boo xiifee naan ko suur soo feebaree naan ko wér bu sa yaram di metti boo ko sangu wér lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne zamzam lima shuriba zamzam lima shuriba lahu ndoxum zamzam loo ko naane rek lool la boo feebaree bëgg a faju boo ko naanee wér problème boo am boo jëfandikoo zamzam yàlla subhanahu wa taala defal la ci barke gis ngeen li leen di wan ne ndoxum zamzam dafa am barke keroog bi ñuy raxas xolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy waaj di jóge ci kaw suuf di fekk yàlla ci kaw asamaan di dem laylatul isra wal mi'raj jibril moo ñëw ñu xotti xoli yonent bi daal di koy raxasee ndoxum zamzam la ñu raxase ndoxum xolu yonent bi ñaari yoon moom ndoxum zamzam ndax yàlla subhanahu wa taala fa haza yadullu taharatihi wa barakatihi lool day tegtale ne ndoxum zamzam ndox mu set la mu laab waaye mu allahu subhanahu wa taala def barke innaha mubarakatun innaha taamu tuami wa shifaau saqami yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ndox la mu yàlla def barke ndox la moo xam ne moo dàq ci ñam yi waaye ndox la moo xam ne day saafara bépp jàngoro fukkeelu tomb bi ak benn mooy al iidayni ñaari feet yi tabaski ak korite luy delloo si barke ci sunu dund la amara nabiyi sallallahu alayhi wa sallam al mar'a an taxruja salaati al iidayni lima laha min fadlin wa baraka yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam moom mi nga xam ne yàllaa ko yónni woon pour mu delloo barke ak ngëneel ak xeewal ci dund nit ñi moo ñëw indil ñu ñaari feet yuy delloo si barke ci sunu dund muy korite ak tabaski moom yonent bi pour mu wax leen ne ñaari bëccëg yooyu barke moo ci nekk mu sant jigéen ñi sax nañ leen génne nañ génne mag yi génne ndaw yi génne ñépp ba génne jigéen ñi ñu jëlee ci ummi atiyata mu ne qaalat amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an nuxrijahunna fi lfitri wal adha al awaatiq wal xuyad wa zawaati alxudur yonent bi moo joxe ndigal ne bisu tabaski wala korite nañu génne ñépp jigéen ñi gis baax sax nañ leen génne jaam yi sax nañ leen génne waaye nañu génne jigéen ñi nga xam ne sax dañoo nekk ci ginnaaw rido yi nañ leen génne ñu fekke ko ñu ne ko waaw ñi gis mbaax nag mu ne ñooñu mun nañoo sori jullikaay bi waaye nañu ñëw bokk ak nit ñi barke bi wàcc ak xéewal yi wàcc ci bis bi gis nga xoolal ñun sunuy jigéen bis boobu bu amee dañ leen di bàyyi ci kër yi ñu toog ñoom lan la ñuy préparé mooy lekk ak naan rek waaye ñu genn wàll gi kenn du ci teew ci jullikaay bi te yonent bi da doon génne jigéen ñi ci jullikaay ya même ñi gis baax sax daaw leen bàyyi ci kër yi jaam yu jigéen ñi daaw leen bàyyi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw fu gën a sori ci biir néeg bi yonent bi nee na ñu génn leen ci bis boobu ndax ñu fekke barke bi am ixwatal iman bokk na ci lii delloo si barke ci sunu dund mooy jéem a dàkk guddik laylatul qadr jéem koo dundal lu tax borom bi subhanahu wa taala moo ne inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka man yàlla maa wàcce alquran ci guddi goo xam ne guddi gu am barke la kon ku jéem a dundal guddi googu nga xam ne ci la yàlla subhanahu wa taala wàcce alquran muy guddi gu am barke boo dajee guddi ga nga xam ne jaamu ci yàlla moo gën juróom ñett fukki at ak ñeent 84 ans benn guddi boobu moo ko ëpp tiyaaba ci ay barke kon ab jullit na jéem këram barke nekkaat fa këram mu jéem faa góor góorlu ba xéewalu yàlla ak barke yàlla di fa sotteeku nekk fa ay waame moo gën rek tey ni ñu bàyyi sunu kër yi mu lëndëm nekk ay këru ceddo nekk ay këru bokkaalekat nekk ay këru fo nekk ay këru caaxaankat fukkeel ak ñett assalaamu isa daxalta baytik saa yoo dugg sa biir kër yow jullit nuyool yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ci hadisu anas ibnu malik mu ne ko yaa bunayya ida daxalta ala ahlik fa sallim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baytik ab julit bu génnee këram ba ñëwaat ba egg ci buntu kër gi na nuyoo nuyoo boo xam ne ñépp a koy dégg nga wax waa kër gi assalaamu aleykum wa rahmatullah yenent bi nee na anas soo génnee bay duggaat sa kër soo ñëwee ba ci buntu kër gi na nga nuyoo barke wàcc ci sa kaw yow mi nuyoo waaye barke wàcc ci kaw njaboot gi nga xool loolu tey ak julli di fun ci toll ñu ëpp ci ñun ndeysaan jàpp nañ ne ñoom kenn waru waruñoo nuyoo ñoom dañ leen a war a nuyu léeg nga gis koo xam ne day fërëx fërëxi rek jubal biir néegam am na ci ñoo xam ne bu nu wàccee kër gi kenn dootul sëq kenn dootul wax kenn dootul noyyi te jullit mooy koo xam ne dafa war a tasaare jàmm dafa war a tasaar leeral kanamam laa tastahqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bul bañ ci njekk dara même dajeeg sa mbokk jullit di leeral sa kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bul ko bañ mbokk yi jullit day nuyoo bu duggee biir këram yu sallimu dana nuyu ad daaxilu ala ahlihi képp ku dugg sa biir kër dangaa war a nuyu sa kër mu ne fa in lam yakun fi lbayti ahad même bu fekkee kenn am nekkul ci kër gi fa yusallimu ala nafsihi na nuyu boppam li qawlihi taala ndax borom bi tabaraka wa taala moo wax fa ida daxaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba borom bi tabaraka wa taala nee na bu ngeen duggatee seen biir kër yi ngalla waaye nuyu leen sax seen bopp nuyoo boo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo nuyoo boobu nga xam ne dafa am barke nuyoo boobu nga xam ne dafa teey nuyoo boobu mooy ban nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu boobu mooy nuyoo bu bàyyeekoo ci yàlla parce que yàlla ba mu bindee aadama alayhi salaam aadama tissooli jóg taxaw yàlla da ko ne demal nga fekk mbooloo malaaka yëla toog nga nuyu leen nga dégg nuñ lay fayee aadama ñëw ne leen assalaamu aleykum ñu ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla ne aadama lii mooy sa nuyoo yaag sa xeet moo tax mu nekk nuyoo boo xam ne min indillahi ci yàlla la bàyyeekoo waaye mubaaraka dafa am barke waaye tayiba dafa teey mbokk yi ci yàlla yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na fa iza daxaltum buyutan fa sallimu bu ngeen duggee kër yi nuyoo leen mu ne iza daxalta baytan laysa fihi ahad fa qul assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin saa yoo duggee kër kenn nekk fa nga dugg néeg kenn nekk fa nga dugg barab kenn nekk fa nan ngay nuyoo waxal assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin loolu la la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant nga nuyoo fukkeel ak ñeent ci li indi barke ci sunu biir kër yi mooy iqamati salaat taxawal julli yi ci biir kër yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na yàlla subhaanahu wa taala wax ko ci alquranul karim keroog bi ismail di jigal njabootam lan la ko yàlla wax wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa ab julit dafa war a ut qibla ci biir këram yi farata yi nañ ko jullee ci jàkka yi naafila yi ñu defe ko ci biir kër yi ab julit dafa war a tàmm di julli biir këram ba doomam yi xool ko xam ne day julli ñu toppandoo ko ci julli waaye xool ngeen tey daanaka da ngay dem kër goo xam ne suba ba ngoon doo fa gis jëbu dëpp kër googu barke munu fa am kër goo xam ne kenn du fa jàng alquran kër googu barke munu fa am kër goo xam ne musique guddi musique bëccëg kër goo xam ne yaramu neen jigéen ñi duñu sàng seen awra kër goo xam ne kenn du fa julli ixwatal iman kër googu naka la fa barke di wàccee suñu bëggee suñu kër yi dund nan ko def kër comme këru sahaaba yi masaabihun fi duja ñoom noonu lañ nekk woon kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun alquran moo ko wax ñoom néew na luñ daan nelaw di guddi jàngeen alquran yàlla mu ne alladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama dan daan fanaan naafila guddi ba bët set am na ci ñoom ñoo xam ne bi ñu amee ñeen fukki at la ñu lem seeni lal daal di denc am na ci ñoo xam ne dañuy tëdd ba guddi ba guddi gi xaaj ñu raay lal bi ne ko lay lal nooy nga lool waaye lali aljanna yi ñoo la gën a nooy te man dama bëgg ci lali aljanna yi yal nañu yàlla wërsëgal ci lali aljanna yi aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان فكيلو توم ak juroom ci li indi barke ci sunu kër yi mooy di jéggalu di def astaghfirullah wa min asbab allati tajlibu الرزق والبركة الاستغفار يقول المولى إخبارا عن النوح عليه السلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا mbokk yi bu ñu buggee sunu kër yi barke nekk ci barke fees fa yërmande yàlla di fa wàcc guddeeg bëccëg nañuy bëri lu ñuy jégglu yàlla ci sunu biir kër yi al istigfaar ndax day yokk wërsëg di def ci wërsëg bi barke yàlla subhaanahu wa taala mi ngi xamal ci suratu nuux ne nuux de ba mu bëggee ay mbokkam ba mu bëggee ñi ko yàlla yónni woon yàlla def barke ci seen dund yàlla may leen wërsëg li leen nuux wax mooy jéggalu leen yàlla seen borom istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara jéggalu leen yàlla seen borom moom mi nga xam ne mooy jéggalaakoon bi su ngeen ko defee yursilu sama aleykum midraaran yàlla dina ubbi asamaan mu walangaan seen kaw yàlla may leen alal may leen ay doom may leen ay tool waaye yàlla subhaanahu wa taala may leen ndox dex yi di daw di walangaan waame yi foo xool lépp daa di naat lépp daa di nëtëx yaqulu al imaamu alqurtubi rahimahullah fi hadihi al aya wallati huwa dalilan ala anna al istighfar yastanzilu bihi rizq wal amtar wal baraka al imaamu qurtubi yal na ko yàlla yërëm bi muy firi aaya bi lan la wax nee na aaya bi dalil la buy wane jéggalu yàlla subhaanahu wa taala di wax astaghfirullah dafay tax wërsëg wàcc day tax ndox mi wàcc day tax yàlla def ci ndox mi ak wërsëg bi barke kon mbokk yi ñoo ngi nii di jéglu nawet suñu bëggee nawet bu am barke nawet boo xam ne du nekk ay mbugal nawet boo xam ne du nekk mbënd di daaneel ay kër di daggi yoon di màbbi montagne di suuxali oto di reyi nit nañu jéggalu yàlla subhaanahu wa taala yàlla may ñu ndox moo xamante ne ndox mu am barke saka rajulun ila ila alxasani albasari aljadba fa qaala lahu أستغفر الله وسكى آخر الفقر فقال له استغفر الله فقال الآخر أدعو الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله وسكى رجلا جفافا جفاف بستانه فقال له أستغفر الله فقال له في ذلك مثال حسن البصري أي نيت دانيو نيو ki njëkk a ñëw lan la ko wax mooy bekkoor dafa am ñun de dañoo xiif amatuñu lu ñu lekk mu ne waa jooju waxal astaghfirullah keneen ñëw ne ko dañoo ñàkk mu ne ko waxal astaghfirullah keneen ñëw ne koy waxal ñaanal ma yàlla yàlla may ma doom mu ne ko waxal astaghfirullah keneen ñëw ne ko tool yi dañoo maral ndox mi wàccul mu ne ko waxal astaghfirullah benn feebar ñeenti feebar benn comprimé fa qaalu gaa yi ne ko waaw yow loolu lu mu mën a nekkee ataaka rijalun yaskuuna anwaan fa amartahum kulluhum bi istigfaari ñu bëri ñoo ñëw ci yow ñépp di jàmbat kenn ku nekk di wax nga ni leen wax leen astagfirullah loolu nu mu nekkee kii ne la sama bopp day métti kii ne la kii ne la kii ne la ñoom ñépp nga leen di jox benn comprimé mu ne leen li ma leen wax jëlewuma ko ci sama bopp li ma leen wax waxu yàlla subhaanahu wa taala la maa qultu min indi shay'an inna allaha taala yaqulu fi surati nuux fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana gaffaaran yursili sama alaykum midraaran al aya li ma leen wax du sama mbiri bopp mbiri yàlla la yàlla moo ne ku may jéggulu dinaa la may barke ku bëgg doom boo ma jégguloo ma may la doom ku bëgg ndox soo ma jégguloo ma may la ndox ku bëgg alal boo ma jégguloo ma may la alal kon man li ma leen wax du sama mbiri bopp mbiri yàlla la mbokk yi fukkeel ak juróom benn ci luy def barke ci sunu dund mooy atawakkulu alallah wàkkiirlu ci yàlla jël sunu mbir jox ko yàlla bañ kaa jox ay nit bañ kaa jox ay gàllaaj bañ kaa jox ay xarfa fuufa bañ kaa jox ay gisaanekat bañ kaa jox ay seetkat bañ kaa jox ay xamb bañ kaa jox ay xaaw borom bi tabaraka wa taala nee na képp koo xam ne da nga wàkkiirlu ci yàlla yàlla dina def sa dund wërsëg ak barke borom bi ne wa yarzuquhu min haysu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu inna allaha baaligu amrihi qad jaala allahu li kulli shay'in qadra képp ku wakkirlu ci yàlla yàlla nee na problème boo am dinaa la ci génne te dinaa la wërsëgal foo ko fekkewul képp ku wakkirlu ci yàlla yàlla dina la doy kon nañu wakkirlu ci yàlla subhanahu wa taala wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin bu fekkee yàlla rek lañu gëm bu fekkee yàlla rek lañu xam ne mooy sunu boroom nanu wékkaru ci yàlla subhanahu wa taala yàlla daal ñuy doy mu ne fa man taallaqa qalbuhu billahi taala fi jalbil manafi wa daf'i darar wa fawwada amruhu ilayhi kafaahu llahu ma ahammahu képp ku aj xolam ci yàlla ajoo sa xol ci mbindeef ajoo sa xol ci ay këram ajoo sa xol ci ay nit sa xol bi yàlla rek moo fa nekk suñ ko ubbee duñ fa fekk fen kenn wala lenn lu dul yàlla borom bi tabaraka wa taala nee na yàlla dina def ci sa dund barke yàlla dina la wër dina la may wërsëg loo ragal yàlla moo la koy dàqal loo bëgg yàlla moo la koy indil loo ragal yàlla moo la ci aar mbokk yi borom bi subhanahu wa taala nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne law annakum tawakkaltum ala allahi haqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruhu bitaana ahmad wa tirmisi wa saxafahu al albani yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na su ngeen wàkkiirlu woon ci yàlla dëgg-dëgg wàkkiirlu yàlla dina leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc yi mbokk yi picc yi ak rabu àll yi lépp luy njanaaw am laaf di naaw fan lay liggéeyee kan moo koy jox mu lekk kan moo koy jox mu naan kan moo koy wërsëgal ku dul yàlla subhaanahu wa taala kenn musul gis ay picc yu grève kenn musul gis ay picc yu marche kenn musul gis ay picc yoo xam ne dañoo xiif bay uti lu ñu lekk borom bi nee na bu ngeen wàkkirlu woon yonent bi nee na bu ngeen wàkkirlu woon comme picc yi yàlla dina leen wërsëgal comme ni muy wërsëgalee picc yi picc day xëy génn teggam naaw balaa muy del si biiram daal di fees del waaye nit ñi nag ñoom ku nekk da nga ne yow sa bopp yow yaay dundal sa bopp te yàlla moo waxoon ne wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha amul benn mbindeef buy dukkat ci kaw suuf di dox ak ay ñaari tànkam lu dul buur yàlla subhanahu wa taala moo lay wërsëgal waaye nit ñi ñoom dañu ne yàlla toogal kaw asamaan nga bàyyi ñun ak sunu bopp ñun danañ dundal sunu bopp xool leen rabu àll yi mani xar yi ñu am sunu biir kër yi yeew leen sax xar yaa ngi lekk xar yi dañuy lekk di naan bu ñu feebaree nga faj leen lu tax ñoom dañoo jox yàlla seen bopp waaye gis nga yow mi nga xam ne joxoo yàlla sa bopp xoolal coono yi ngay daj am na ñoo xam ne dem nañ ba jël gaal dugg gaal dee ci biir géej gi pour uti lu ñu dundee ñii dem nañ ba bu àdduna amoon ginnaaw nga ni dem nañ ba ginnaaw àdduna ngir uti lu ñu wërsëg ngir uti lu ñu dundee waaye xoolal xar yi demuñu fenn ñu ngi nii toog sa biir kër yaa ngi nii dem jumaa ñëwaat boo ñëwee romb xar mi mu ne la merde gaawal indil ma sama añ bi ma añ nga jox ko mu lekk ko bare mu ne la ana ndox bi dimanche nga xëy mu ne la bul buuse gaawal nga ñëw sangu ma yépp yaa koy defal bu feebaree nga yóbbu ko ci vétérinaire bi parce que dafa wàkkiir lu ci yàlla fu mu nekk lekk borom bi subhanahu wa taala Muusa Suleymaan dafa Muusa wax yàlla Suleymaan xam ngeen dafa amoon doole Suleymaan ne yàlla damaa bëgg nga bàyyi ma ma dundal àdduna bi yàlla mu ne mënoo ko Suleymaan ne yàlla bàyyil ma jéem yàlla mu ne Suleymaan mënoo ko Suleymaan ay weer la doon wax yàlla naan ko mënoo ko mu ne semaine yàlla mu ne mënoo ko mu ne ñetti fan yàlla mu ne mënoo ko mu ne benn fan yàlla mu ne ko mënoo ko mais jéemal Souleymane dem jël jinne yi 4 kilomètres carré Souleymane togg ko ay lekk ba mu ñor ba lépp baax mu teg taabal yi teg lépp mu daal di woote ne yéen mbindeef yàlla yi ñëw leen maa leen di dundal tey benn mbindeef moo génn ci biir géej gi benn mbindeef bi mu ñëwee dafa raatale palaat yeeg kuddu yeeg bool yeeg taabal yeeg cin yëpp daal di koy def benn lanc daal di koy saqami daal di yuuxu Souleymane ne ko ragalal yàlla ci man benn bi nga ma jox yàlla ñett la ma doon jox te benn nga ma indil te ñeneen ñi lekk guñ kon xoolal ba ci biir géej gi kan moo leen di dundal allahu subhanahu wa taala moo def ci seen dund barke kon jullit yi bu nu wakkirloo ci yàlla subhanahu wa taala nu nu war a wakkirloo dëgg dëgg dëgg yàlla dina leen wërsëgal fuñ ko foogewul woon fukkeel ak juróom ñaar ci luy maye barke ci dund nit ci biir këram mooy aziwaaj mooy takk soxna qaala taala in yakunu fuqara yugnihim allahu min fadli wallahu wasiun alim wa kana omar ibnu alxatab yaqul ajaban liman lam yaltamis alghina fi nnikah wallahu yaqul in yakunu fuqara yugnihim allahu min fadli ab julit bu ragal yàlla bu bëgg fegu bu bëgg këram barke am ci bu bëgg dundam barke am ci na dem takk soxna boo takkee soxna yàlla nee na yaag soxna si bu ngeen nekkee ñu ñàkk man yàlla subhanahu wa taala dinaa leen wërsëgal in yakunu fuqara yughnihim allahu min fadli bu fekkee dañoo ñàkk ñoom ñaar ñépp wala waa ji dafa ñàkk wala ndaw si moo ñàkk yàlla subhanahu wa taala nee na man maa leen di wërsëgal omar ibnul xataab da doon wax ne man de yéemu naa ajaban man de waaru naa liman lam yaltamis alghina fi nikah ci waaju ñàkk joo xam ne demul daqe ñàkkam boobu takk jabar ndeke kon sunu bëggee sunu dund am barke sunu bëggee sunu kër yi am barke nañu denc ay soxna nañu denc soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bokk na ci tomb bi ñuy mujjantelee te muy jeex muy fukkeel ak juróom ñett te muy indi barke ci kër jullit mooy as-suxuur mooy xëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka wal muraadu fil baraka al ajr wassawaab yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu koor jotatee moo xam weeru koor la wala ayaamul biit fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom wala sawmu saaba nisfu saabaan wala wala altine wala alxamis nga bëgg a woor kooru naafila wala kooru farata yonent bi nee na dee leen xëdd ndax xëdd yàlla def na ci barke ndax xëdd yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na liñ ci jublu mooy ci barke boobu yàlla def ci xëdd mooy tiyaaba yu bëree bëri la la yàlla di fay yonent bi nee na même benn tàndarma sax booy yeewu lekk ko ci wala benn guuxu ndox booy yeewu naan ko na la jaral nga yeewu def ko ndax yonent bi nee na barkee ngi ci tey luy sunu problème mooy suñ na woon benn ñaan bii ñaan bii ku ko mokkal saa yoo xëyee boo ko ñaanee di nga fekk 10 000 sa poos di nga gis ku nekk ne bindal ma ko bindal ma ko bindal ma ko loolu rek mooy suñu problème ñaan buy indi xaalis ñaan buy indi visa ñaan buy indi ñaan buy rek waaye ñaan boo xam ne day indi barke di dugal nit aljanna loolu moom da ngay wax ba sonn kenn du la faale waaye tey buñ ne woon ñaan bi de ku ko ñaan balaa ngoon léegi ambassade Italie dinañ la woo wala ambassade États-Unis dina la woo allahu akbar billaay tey kenn du ñibbi imaam dina bind ba mbaggam yi damm yonent bi alayhi salaatu wasalaam kay li mu wax mooy dëgg yàlla moo ne yonent bi lu mu leen wax dëgg la maa yantiqu anil hawa kon yonent bi nu mu ñuy waxee mbir yi ku ko def sa kër am barke te duñ ko def kon li tax sunu kër yi amul barke yépp ñun la ñun ñoo tax kër yi alko ñoo tax kër yi doomu aadama yeewootu ci daanaka léegi ay rabu àll ñoo nekk ci kër yi ku xool mbedd mi ni mu mel mbedd mi ni mu mel moo lay wan ne kër yi noonu la mel parce que ñi ci mbedd mi ci biir kër yi lañ jóge yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitu alqulub thabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله